inna allazina ila sarsara qad qasadu ziyarati faara bi Amen Amen. maanaam dama doon def lii xeetu pare la xam ni setantaar bi ak bële sëg lii ànduwul la yoo xam ne lii njàngum alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaa wal mursaliin sayyidina wa mawlaanaa Muhammadin al amiin wa ala aalihi wa sahaabatihi ajmaiin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax di tàmbalee ci ziyaar bi ak nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Cheikh Salih Mbacke. ñu ngi koy ziyaare bu baax ci biir ziyaar bi ñu amal di ko nuyu tey ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool may ko ak wér eggaleel ko yéeneem ci waajuram bu tedd wa Seex Saalix eggaleel ko yéeneem ci lislaam ak maamam ju tedd ja Cheikhul Xadim kàddu yi kàddu yi gàtt rek lay doon waaye kàddu yoo xam ne ak cant la ak soññaat sunu bopp cant gi dañ koy jëmale ci sunu borom subhaanahu wa taala mi nu sàkku ci coobareem di ko jëme itam ci cheikhul xadim mi nga xam ne moo nu fàggul sëriñ mi nga xam ne jëmm jii toog ab joxoñam la cheikhul xadim radiallahu taala anhu amul kenn koo xam ne taq nga ci moom te tànnul la boppam sëriñ saaliwu nag moom ñaanu sëñ tubaa nangu la doomi sëriñ tubaa la waaye nag ñaanuk sëñ tubaa gu nangu la ndax seexul xadim radiallahu taala anhu bi mu jotee ndigal ci sas yoonu murit ndigal li ko sunu borom njëkk a jox mooy tër bi yàlla jaam ñi tàggale leen ak seeni aada ak seeni bëgg-bëgg defar seen ru mënale leen ak seen borom rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars loola am na ay sart yu baree bari yu muy laaj sëñ tubaa mosu caa teggi tànkam ba ni ko sunu boroom tege liggéey bu mag bii nga xam ne munta ànd ak dara dara dara dara te mooy yoonu géej foofee la ñaanoon sunu borom ne ko nang ma may koo xam ne liggéey bii nga ma santoon muy tërbiya dana ko mën a mottilil ñaan googu yàlla nga ko nangoo ci jëmmi sëriñ Saliou ni yàlla binde àdduna xam ngeen kenn du fi nekk di dem rek waaye ku ne mën nga fee bàyyi sa bopp te dem jëmm jii toog ci ñi fi sëñ Saliou bàyyil boppam la doon yàgg naa wax ci seen kanam ne bu ñu doon wër ci yoonu morit ñi nga xam ne sëriñ Touba jur seeni waajur ci ñi ci gën a néewi at lay bokk waaye ku ko gën a diis ab yéen amu ci yoon wi sunu boroom nag am na nu muy junje mbiram ndax jëmm ji yan bii ko sunu boroom yan ab joxal la ci ne am na lu mu nar ci moom la mu nar ci moom mooy la sëriñ saaliwu yéene woon sëriñ tubaa tàmbali ko ba yóbbu ko foo xam ne dootu fay mu samp jëwriñam joo xam ne fa mu ko bëgg a yóbbu dana ko fa yóbbu jëmm ji di Cheikh Mortada ci tànnub sëriñ tubaa boobee la bokk boolewul boppam ci sëriñ saaliwu sëriñ saaliwu la neex mu tànn ko def ko mu muy Muhammadul Mortada sëriñ Saaliwu tànn ko rek ngiruk tànn daf koy liggéeyloo kon na ngeen dalal seen xel bu baax a baax a baax sëriñ Saaliwu daf ñu daan wax ne lu nar a rëy ndorteem day sew seen jataay bii dangeen dem ba dootu xaj fenn ci àdduna nañ koy ñaanal mu yàgg fi rek te te ku ko xam danga xam ne fii mu teg tànkam pàgguti fu sëñ Tubaa dëgg ngi nii ab pàggu téefa ngi nii ku yàlla yitteel la kuy sonnal yàlla la ku mbindee fi ñor la ku bëgg a eggaleel waajuram ay liggéeyam a ngi nii te ku ko xool te xam nit danga xam ne tegoon na lu diis ci jëmam ji ku xam sëñ Saaliwu miin ko xam ay definam da nga xam ne laa xarwa in saabaha al awlaadu waliduhum nit bu nuroo waajuram wàcc na góor dëgg ngi nii ab cër dëgg lañu sëñ Tuubaa defal ci jëmm ji moom day benn bëgg-bëgg rek la am ànd ak yéen ba ngeen mucc na ngeen xam ne ku toog nit ne jox naa la sama bopp adduna alaaxira boo sañoon mooy gën fii mooy gën fa nga jëm ngëneel loolu rek la leen bëggal te ngëneel loolu du bàyyi kenn ci bakkanam wala ay bëgg-bëggam ndax toppul bakkanam bu toppoon bakkanam di ngeen ko gis fu nekk di ngeen ko dégg fu nekk ndax jote na fu nekk nag Serigne Saliou woy waajuram jote na fu nekk waaye nag toppal bakkanam bul topp mukk sa bakkan bul toppalit kenn bakkan ñii yaari yëf day tax bon ku ko bawul di jëm kanam kon nag da ngeen xam ne liggéey bii ngeen indi sofu na ca yéen daan defal Serigne Saliou sëriñ Saliou de ku ko masaan indi liggéey day wax ne gis nañ ko ñi ngi koy seedaloo sëñ Touba mi tax ngeen indi ko sëñ tubaa moomu nag nun bu nuy xool bagaas yi bëti saay rek lañ koy gisee sëriñ tubaa nag moom xam ne biir xam ne biti ndax jërul sax sëriñ bii dafa oyof rek baax jërul woon sax muy jëg du xool bagage yi ndax lu sëriñ Touba nar ta nangu duñ ko teg ci loxoom ndax du ko def fu sëñ Tuubaa dul nangoo jëf juñ dul nangu mooy jëf joo joxub sëriñ te demul ci sëñ Tuubaa loo jox sëriñ mu yóbbu ko ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangu na ko kon moom bi mu ne bi jëf ji ne jëy payug jëf ji la jàkkaar lool doyoon na sëkk sëriñ Saaliw da daan wax ne addiye boo ko joxee kan ko jox fam ko def sab xol dootu jug foofu moom bu ko jëlee yóbbu ko ci ñay liggéeyal yàlla moom sëriñ bi fas na yéene seeni xol sax ci yàlla te ñooñee nag nangeen xam yót leen dara ni mu toll dañoo bàyyi yàlla dañoo bàyyi àdduna wàcc seeni waajur di ut yàlla sëriñ bi xaarul kenn dégluwul kenn waaye lii nag mooy tax mu mën leen yóbbu yéen fa ngeen jëm mooy seen ñaq yi nga xam ne moom ngeen koy defal ci liggéey bi ànd na ma ak aw nit man ñëw ci sëriñ Saliou jox ko ab liggéey di ko di sant mbooloo moomu ci seeni jëf sëriñ bi ne ma nañu sant yàlla ndax barab boobee day ku fa def sa jëf am na cër boo fa am boo xam ne lañ fa jëf dong la ko te a mën a jot kon nag na xam ne seen jëf yi ay lugat la ngeen gën ci góor góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax te xam kii leen sëriñ tubaa booleel yéesu de yeesu kenn bu sëriñ tubaa di san di la ci yoon wi ku mu sédd ma Ahmadul Murtada sa xel war naa dal kii ab cër la ab cër la sëriñ Saaliwu lépp sëñ Tuubaa ci moom la ko yàlla doxal dogal wa Cheikh Mouhamadul Mourtala mii coobare sëriñ Saaliwu la coobareem la moom la neex mu boole ko ci boppam bàyyee lii mu ko bàyyee te xam na bu baax Mbàkke liñ ko bàyyee xam na ko ku xam li muy toggoo ci jaamu yàlla ak yërmandeem da xam ne dëgg dëgg sëriñ Saliou a ngi ni toog yàlla na fi yàgg bu baax a baax a baax a baax a baax teñ laxasu waaye bu baax a baax a baax a baax a baax jàmbaar ku topp ci ginnaam am dangay xam ki nga àndal jiim koo nuru nurulu di ko roy di ko topp te xam ne du tegg teg tànk mukk ci yoon wi kon nag nun itam nañ teg suñ tànk ci am rek te xam ne yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ci kanamu sëñ Saliou la ñuy daje salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu. dafa am solo sëriñ bi ci jaamu yàlla rek la nekk ak woolu borom Touba gannaaw bam doyloo sunu borom ku doyloo borom Touba la waaye ku doyloo sëriñ Saliou la dama ne keroog daje bii bi fi jóge tur bi laa fakk Abibou Faye dafa nekkoon ci musique di fa yëngu waaye dafa doon ab taalube yaakaar sëriñ Saliou Mbacké keroog ba mu noppee di sëñ Saliou dafa jëppal boppam sëñ Mourtala mii keroog ba nga xamante ne yàlla dogal na mu jóge mbooloo ma dafa taxaw ñuy def levée du corps président la république nekk fa ak ministre am mbooloo mépp daje fa kuy kilifa ci réew mi keroog daje ko fa mbooloo ma kenn attanu ko waaye mbooloo moomee lan doon xaar mooy jëmm ji teew ndax jëmm ji day yokk personnalité te day jëmmal nit te mbooloo bu dajee kii ñëw fa ñu xam ne sëñ so sëñ Murtada sëñ Saliou ngi nii président de bi su si dara jaw dina si yokk ay ay mbiram ñu xam ne kon bu boobee président de la république boobee ci boppam ñoom àndal ñëpp danañ ko demoo tam boobaa kenn ku ne di wane na dina wane nam sañ sëñ Mourtala waaye yàlla dogal mu xam ne loolu du mbir délégation bu mandal bañ tolloo ca war fa dem daf leen ne yéen ngeen a yeewu man duma ca mën a dem ñam àndaloon kii mooy seere si baay mu jaxate mii ak ñam àndaloon ñooñu yeewee ko dem fekkee ji loolee moom mu toog ba nga xam ne jële nañ ñëw ba ca wax yéen doon wax ak yéen doon def ba àggal yóbbu ko sa jàkkale mu jóg solu daalam fekk leen sa jàkkale ba mu ñëwee taxaw néew bi ñaanal ko yàlla sëñ Tuubaa jàllale ko mu war ba ko dem sa kër ga jaale leen kii la ñu àndal dañoo war a am fulla dañoo war a am fayda kër gi mooy suñ jumaa ja mooy suñ lépp nañuy ñëw ci sëriñ bi di tàmbalee ci moom tey yem ci moom lii jëmm ju mel nii waat national ni ko seex sooy bu waxee ak pàggu téef la dañ ko jagleel pàggu téef la nañ si moy nañ ko jàpp suñ bëgg yëpp nañ ko def ci moom nañ gën a takkoo nañ gën a booloo nañ gën a nemmekonte nañ gën a fasaat mbooloo mi te yaatal xibaar yi ku ko jot na nga ko yaatal ku mun ta ñëw boo ñëwee loo ko mën a yëkkatee indi ko nga yëg nañ ñu ñëw ñooy ñëw fii si kër sëñ bi laa amuñ ko dul kii buñ fi ñëwatee nañuy sax fii si moom liñ soxla lépp ngi fi billaahi wallaahi wa taalaahi jërëjëf wasalaamaaleykum mu dox jëm ca loola ngeen topp ci garam ànd ca loola loola rek la fi fee nekk fu su fee nekk lenn lu loolu ci àdduna kon dafa ni dafa wax ni moom day sosul lenn lu Serigne Saliou sosoon te Serigne Saliou li mu sosoon ñun ñi kenn ku ne xam nga li Serigne Saliou sosoon xam nga ko ñi fi jëkk jaay itam loolu dong la ñu waxuñu leneen kon guddal wax dootu ko jar ndax moom day du jëm yoo xam ne dañ koy waxati di ko waxati di ko waxati di ko waxati suñ ko doon wax war na mën a noppi nag bu ñu doon wax rek ak ci moom danoo war a noppi nag ndax ndax. noo noo ngi koy bëgg a xam mbaa boog noo ngi koy bëgg a miin te dafa am loo lu lu mag ñi waxoon ni Cheikh Abdou daal Mbacké de ba mu ganee àdduna Sëriñ Tuubaa dafa wax ni dama am yaakaar ci moom maanaam li li li sang baax rek sëñ Tuubaa wax rek laay dëggal ni mag ñi sëñ sëñ Tuubaa dafa waxoon ni Cheikh Abdou Lahad am naa yaakaar ci moom yaakaar jooju nag moo ko topp ba jamono jii ku baax kii. dama am ay seere ci nit ku baax ku jege Serigne Saliou ku Serigne Saliou yar ku mag ci yoonu Serigne Saliou ma seere muy Serigne Diouf mii mu xamal ma ni ma sëriñ Saliou ko wax ni ko nan nga ko ñaanal ndax am naa yaakaar ci moom barke Seexul Xadim Serigne Diouf mooy sama seere ci wax jooju kon kon loola loola doy naa yem doy naa yem te man de. du ma jaayee sax te réeru ma waaye moom mii dafa am kàddu sëriñ Serigne Saliou wax te maa ngi yéen yem ci loola waxtu wu ne ci àdduna lu nu jariñ Serigne Saliou dong la ñuy wut Serigne Saliou wax ci làmmiñam ci màggalu Touba ma jug di jug wut ay bagages yu jëm ca dalam bu bees bee ko Serigne Saliou joxoon mu mu am jafe-jafe ma nuyoo Moussa Dieng ni ko dama bëgg loo jëm kër Serigne Mourtala mun ma loola mënuma ko mu di ay ay cin man ko lu tax mu ne ma duma ko joxe te sëriñ Saliou waxuma ko man ko daan dem ci sëriñ bi nu jiitlante loola manel seere la ca loola nu jiitlante ñëw ci sëriñ Saliou man ko man day damaa astafurlah Moussa da ko sëñ Modou mi de moom mbirum sëñ Moussa rek fi moo ko ñor sëriñ bi ne sëñ bi daal di ne ni ko Moussa mu ne ko ne ko xam ne loolu sant naa ci bu wér de kon lu nit def ci àdduna ba am ca ngërëmul sëriñ Saaliwu war na caa sonn te ñun lii de def kon am nañ ci ngërëmul sëriñ Saaliwu ndax loola ma doon def ak lii benn la rek amul gën takkalikoo kon nan seere ñun am nañ ngërëmul sëriñ Saaliwu si jëf ci te loolu rek nu ñor na dara ñunu man de dara ñor ma lu ngërëmul sëriñ Saaliwu ba ma sëriñ Saaliwu waxee loola laa daal xam fu may jaar man ba léegi jaaruma fenn loola ci laa daal jaar buutuma weneen yoon nag ci àdduna mënoon na maa xal yeneen yoon di ca jëm waaye man ngërëmul sëriñ Saaliwu fa mu jëm fa laa man jëm ma feneen kon taalibe yi noo leen di saari yéen ñëpp suñu xol seet na guy ci yéen te tam day day day yokk rek du dellu ginnaaw mukk ci àdduna barke Sëriñ Tuubaa ma yaakaar dara du dellu ginnaaw kanam rek la jëm waaw nan ko ñaan rek mu yàgg fi moom daal ak yàggam fi mooy suñu njariñ le Sëriñ Saliou waa Jóob daal wax ni li ngeen ko waxee mun ñaan leen ma yàgg fi rek waaw loola nañ ko wéy di ko ñaanal mu yàgg fi su fi yàggee lu bëgg lépp dina dina saafara waaw Mbàkke noo ngi lay ñaan yàlla nga fi yàgg Mbàkke sëriñ sa sëriñ Mustafaa Mbàkke yàlla na fi yàgg ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla nga fi yàgg yàlla na nga yàgg sa ginnaaw yàlla na nga yàgg ji lu Serigne Touba di séddale ab sëtam yàlla nga ci ëppale ci barke Serigne Touba jërëjëf maanaam barkeel ko gudd fan ak dégg nga bu nangu ñaan lool maa ngi ko may ni ci barkeel nga yo fekke fa nag barkeel ko gudd fan ak dégg nga yàlla moom gaa yi koy jàng ak ñi dañu yàlla wax rek la ñu ko ñu yàlla alhamdulillahi rabbil alamin ala muhammadin ma ahli barkeel yàlla nanu sant yàlla te ñaan bu yàlla may nu ngërëm bi jaar وسيخينا سبي بشيرا ومصطفى وخيرنا بسن وسفن وفضلا منه ينا آمين آمين رسول بشير ومغفر وسقم مولدينا وارتب الإنسان ولا يدوم بدعاء الشيخ مرتضى محمد ميمون